nga xam ne moo dugg nag moo yëngal ñëpp ndax wax na fi wax yoo xam ne bii fàttali nañu waajuram wu tedd wa wax na ko waxin wu leer nañ teg na ko ci ak ñoo ne ay teg na ko ci ak am leer na ñëpp dégg nañ ko mboolem kër gi yëpp ñi nga ànd ak moom loolu yu bëri ko ci jàppale te di xam foofu mu nekk fi la ñëpp soo koy ñaanal bu baax yàlla dëgëral ko fàttanal ko xam ne sa waajuram a tegoon tànk foofu la ko teg eh, mbir mi xew nag dañ koo bàyyiwu xel waaye ñun de yàgg nañ cee wax te ba Obama eh, dama ko ne woon pour le moment ji dégg nañ ko de waaye nag ñun itam pour le moment ñu ngi xaar boobu itam xamoon nañu ne pour ji am na lu ne ci gën def nañ dañu ñëpp teg nañ ci bët gis nañ ne loola la dara gi ñu ne dañuy def référendum bi ñëpp dégg nañ ne fii ci Touba ma ne bu leen wootee référendum bi ndax dafa bokk ci li war ak jullit lépp loo xam ne amul àtte ba ci diine amul droit di ko def te bi li ngeen di tuddee yéen sëriñ bi xamu leen ko seen taalib xamoo ko nit nag lépp lu mu xamul waru ko wate ba tax na ñu bari te waxtuwaay gis nañ dañ na mu demee lañ di doon ragal lépp ci bët teg nañ ci bët bu baax loolee nag moo continué ba léegi di dox ba léegi lépp ngir mu ñëw bu nekk taxawaay ba nga xam ne bii moom la ci politique du du taxaw taxawaay lay doon boo xam ne bii taxawaay bu njëkk bi rek lay doon. te yàgg naa leen a wax ni classe politique bu Sénégal koo ci koo ci takk rek daf laa neex waaye ñoom ñëpp ñoo bokk ci kenn dama leen a waxoon ne mi ngi mel ne rek gàddu kola nga bëgg kaa nga bëgg kaa génne ak bu bu bët ak gudd ak golo moom. saa boo ko dugalee ci kaaf bi boo jënd barke nag koo jënd rek ba ñu day xóot jën ba day gudd. boo gisee itam moom la ñu mel képp ku nekk ci làng gi la mu lay wax bu ñëwee ci pouvoir bi du bokkal la ñuy def loolu nag ñoom nañ ko bu baax ndax bañ nekkee ci làng yi dañ ni mboolem lépp loo xam ne ñu ngi doon ko xaarloo dañoo ak a wax lañ amul benn mbir moo xam ne bii saase nañ ko fi te lañ doon wax ne def naa naqari xaman dama jàpp ne ak bu waxee ñëpp déggu ko bu def jotee dana ko jëf waaye faye gii ñuy faye xeli doomu aadama yi ñun ñu ñoo leen ci bàyyi ndax kat wéesut lii ñuy def ñu am toppale yoo xam ne lii ko door jum sax xamul jaay toppale la ngay kilifa ci réew teg sa tànk réseau de ma yi lay xool di xam li ngay def loolu ku mel noonu indi teg ci kanamu ak réew politique yi dañoo lii laaw bu wàcc donc wax naa leen ko fii ne leen yéen a ngi jëm dugg loo xam ne bii bu ñoree bu leen fekk ci dara fekk seen njaboot gis nga keroog bi ñu xasee wut yi mbas mi ñëw ci réew mi bi ñu jàppati jàpp ñu ko a tëj dafa fay ne waxoon ne yéen ñëpp gis ko ne leen ci réew bu wér ci ñun mbas mi yéen politiciens yi lañ leen ci yéen politiciens yi yéen a mën a wax yi ñu dégg bépp xabaar boo xam bu ñu ngi bàyyi ko seen biir ci nopp doomu aadama yi ay fen lañ koy jàppee tey ay fen ndax mbas moo xam ne yaa ngi ciy biir déglu ñu ay maanaam gis nga bu ñu la ko waxee nawet bi ko lépp ci moom mbas ci boppam kala ko wax nga rek. boobu nag dara jëm ko ndax jëm da toll soo xam ne fii maanaam foo wax ci adduna boo ko waxee ba noppi ñu ngi koy waxal maanaam tey lan la ko daw xam ne li ngay wax dina bi loolu day lu ko jënd yaru ko. yoon li ñuy jaar la ñu ko wàccut yoon la woon boo xam ne bii ñëpp ku ñu yëngu ñoom ñi koy rëdd sax dañ ma defee doy ci mucc waaye bi ci mucc dañoo war a gëm yàlla xam ne beneen yàlla bëggee jox nguur gi kenn kenn doon ak jot ci ndax ñun de ñun de ñi ñu ko doon ñi ko doon ñi ko lañ bokkoon lan gannaaw waaye foofa lañ foogoon nag bokk ko yii ko yàlla joxe qul ya allahumma maalikal mulk yàlla bu lay jox nguur nga nguur jox la ñëpp waaye nag waxtaan si yow moom kat man sa taw. gis nga ku koy jël da koy xam nga lu ñuy ba da ko day jékki-jékki di nocc ba jékki-jékki jeex fat mais bi ñu bi ñu ne Abdoulaye Wade nguuram gi mën naa am ñu ba ko yëg loolu ci la koy Macky Sall foo ko waxoon du waxoon ne parti jël mu ngi jox la ñëpp di ci tëb du ko ak ci day gëm yàlla waaye façon bii ñuy doxee nga xam ne bàyyiwuñ yàlla xel bàyyiwuñ kenn xel te bu mbir xewee ñu naan dëgg ci wax jërëjëf si bu wax lu mu wax. te yooyu tamit wax dëgg la ñu wax ci ñëpp dégg nañu léegi yëpp la ñu doon wax ci ñëpp loolu mu wax loolu lay wax kon nag ñoo ngi leen ñoo ngi leen di waal ba ngeen dellu si waat xam ne da ngeen tàmbalee toog ba léegi ñun de lépp mu ngeen doon def rek la seen place wax nañ ko te it am nañ bëgg na la ma waxoon mooy dëgg. doomu aadama demee ba ñàkk seen confiance wóoroo biiram dellootuñ leen tey bi dëgg ngeen war leen ko lii xew tey nag daf ko firndeel nag dafa dem nag ay nag jëmm bi dajaloo nekk jaww kan jiim ko jiim ko muy muy